ay 2000 2000 la boo yoo xamee xaalis li ay 2000 2000 la foo dëkk yow fii nga juddoo Dakar ba pare xamee woo lii li nga ay 2000 2000 la ah boo yow la dal na ko yàlla may balaa bee jeex dégg nga loo mu saagalee ndogu ndogu loolu problème ndogu duñu boole. Ah, ah, yow. mën li bëri na li na ah, da ngaa baax yal na yal na am sëg allahumma amiin yal na yal na mën a bëgg allahumma amiin yal na yal na dem attan man de mën naa màgg ma dolli ah. ma dolli ah. jaajëf Moussa lool mën naa ndogu mën naa ndogu